musique soxla mbokk yi asalaamaaleykum ñu dellu di leen ziar yéen ñëpp ñu ànd ak ñun ci subaak léegi ca fajar ba nu ko tàmbalee euh, ak euh, Oustaz Mor Thiam Hadj Ndiaga Seck waaye RFM matin ak Hadj Babacar ba ci édition d' information 7 heures ci daan corona it naka noonu amuñu seen ak pay mbokk yi. Euh, ñu ngi leen di gërëm di gërëm it monsieur ministre élage Hadj Oumar Youm mi nu may as tuut ci tàngam tey jii ngir waxtaan waxtaanee actualité monsieur le ministre maa ngi lay maa ngi lay delloo ziar El Hadj di la nuyu di nuyu ñi ñuy dégg ñëpp. jërëjëf monsieur le ministre gars yi bi ñu déggee ni yow laa invité sànq ma ko annoncé daal <laughs> téléphone yi dama da ngaa waroon wut serveur vocal rek ma ma la téléphone yi <laughs> ñëpp ay tali la nuy jàmbat dinañ ci ñëw ci kanam. <laughs> allah euh, mbas mi teggil ngeen chauffeur si euh, lenn ci interdiction euh, naam xam naa ni ñoom yàkkamte woon nañ ko ndax koom-koom bi wax dëgg yàlla poos yi yëgoon na ko njaboot yi na ko noonu naka la euh, teggi gi demee ak lan ngeen cey toftal ne suivi ngir rek mbas mi warloon lépp bañ a amati doole. chauffeur yi moom wax dëgg yàlla ak opérateur de transport yi euh, mbas bi laal na leen dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. Mhm. yi gën a ñoom ñoo ñoom lañ ci ñoom lañ ko njëkk a teg. Mhm. donc te muñ nañ ko wax dëgg yàlla et muñ ko ak euh, ak courage ak responsabilité. Mhm. xam nañ ne lépp mbas bi moo ko waral. moo tax bi ñu toogee nag ba def juróom benn weer ñoom rek ñoom la ñu doon euh, téye ci seen euh, possibilité de euh, chargement yi ak aussi ci seen place yi ñoom rek la ñu téye woon parce que ñi ci des ñëpp presque xawoon nañ leen bàyyi mais xam nga li tax parce que Dakar fi moo nekkoon vraiment épicentre maladie bi. Hmm. te transport urbain ci Dakar fii la gën a développé aussi. te souvent gis ngeen pratique yi daan am ci transport urbain yi dañuy feesal paas yi feesal place yi feesal oto yi bay sax di lang ci biti ba porte yi dañu mën a tëju. Hmm waaw léegi nag comme nekk nañ ci phase bu bees ñu peut-être ñaan mu de mhm. euh, école euh, euh, activité économique bi reprendre moo tax six mois après bi évaluer dans le cadre du gouvernement ministre de la santé waxtaan si président mu joxe parce que risque bi amoon ci transport urbain mooy entreprise dañ la doon tëj Mm-hmm. parce que kuy kuy kuy jaaye benn ñu ne la léegi jaayeel genn wàll wala wala lu yées genn wàll. Mm-hmm. xam nga kooku njaay moomu njaay à perte la. xam ñu ne déjà transport urbain dañuy perte souvent parce que tarif yi depuis mille 2009 yokkuñu ko. Mm-hmm. Euh, carburant mu ngi yokku. Euh, donc euh, te gis nga temps de trajet bi dafay gën a mm-hmm. bari parce que embouteillage yi dañuy embouteillage yi surtout voilà donc ce qui fait que boo continuer nag di leen tëj ci tëjaay boobu doo mm-hmm. moytul entreprise yi dinañu am ay ay dégradation yu sévère sinon sax dem ba fayit du baax gis nañ ko ci Dakar dem dikk gis nañ ko aussi ci ñi nga xam ne ñoo nekk Afrique mm-hmm. moo tax vraiment ñu jël mesure boobu mais mesure la dañ ko jël ba pare nag dëppale ko ak contexte bi aussi mooy d'abord le port du masque est arrêté ministre de l' intérieur. Mhm. xam ne transport dañu ne le port du masque obligatoire. obligatoire nag ci biir oto bi ak képp ku nekk ci biir oto bi maanaam chauffeur bi euh, ak euh, passager yi. Mhm. tout le pour tout le temps di trajet maanaam bu oto bi di daw ba fu muy àgg. ñëpp dañu war a masque port du masque nag la ñu wax mm. waxuñu arborer le masque mm-hmm. dañu porter le masque porter le masque mooy def masque bi mu mu fatt sa bakken fatt sa gémmiñ euh, foofu foofu nga baal ma ñu taxaw ci as ndax dañ doon dañ doon teg ay daan euh, chauffeur bi nga xam ni dafa yeb ñu ñu ñu lanka sol seen masque ci biir oto bi man ma gisoon ni bu ñu ko defoon responsabilité individuelle maanaam ku ku dugal léegi sa loxo ci taal bi mu lakk la client boobu du du yóbbee chauffeur bi ay alamaan ak yooyu moi je pense que il faut sanctionner chauffeurs yi waxoon nañ ma ko ba waxoon naa si aussi wax ci ak ministre de l'intérieur parce que mhm. loolu quand même tegawul si yoon euh, la responsabilité pénale elle est individuelle mhm. maanaam nit ki liñ la tere yow lañ ko tere mhm. boo ko deful yow lañ war a daan waruñu daan chauffeur parce que chauffeur bi li mu man mooy balaa ngay dugg sama oto nga takk masque ah mais ki dugg ci oto bi nag ci yoon bi mu dindi masque parce que dafay fàtt wala pour plusieurs raisons wala dafa bëgg lu ko neex kooku bu ñu koy daan moom la ñu a daan par chauffeur mm-hmm. bi mm-hmm. parce que moom def na jël na ay matuwaayam te responsabilité bi dafa individuelle mm-hmm. donc dañu war di takk masque yi mais takk masque yi aussi même ci place yi nga xam dañu fay jëlee oto loolu dañ koy préciser wax nañ ko aussi ci arrêté bi nga xam ne jël nañ ko très bien wax ne aussi dañu war a respecter de places yi nga xam ne moom la ñu autorisé pour catégorie véhicule bi nga xam ne moom mooy def transport public maanaam oto bu nekk bu soit ci sa carte grise wala ci sa licence wax nañ la nombre de place bi nga war a yëpp. kon surcharge du am loolu loolu ñu war a sàmmante. mane ne surcharge du am. surcharge moom amul te c'est illégal. Hmm. donc dañ ne sax d'ailleurs xam nga transport urbain dafa am place debout. Mm-hmm. moom rek moo ko am ci transport ci Sénégal. c'est normal parce que euh, transport urbain oto yi noonu lañ ko tëggee. mooy bii daw ci biir dëkk biir diwaan bi jàpp fu ñuy taxaw et cetera. Mm-hmm. mais même dans ce cas dañu ne même buy am deux places debout aussi warul tere porte bi fermé wu. maanaam mécanisme de fermeture et d'ouverture porte dafa war a rester flexible et malléable. Mm-hmm. donc loolu aussi wax nañ leen ko. il ñuy bàyyi nag di yëpp ba nga xam ne day fees del del del beneen obligation bi mooy war nañu di aérer oto bi. maanaam oto bi moom dafa war dañu war a ubbi dispositif bu feesee. Mhm. dañu war a ubbi dispositif yi oto bi am aération. oui donc loolu aussi wax nañ ko ci arrêté bi wax nañ ne aussi nag borom oto yi bés bu ne bu ñuy liggéeyee ba ngoon gi dañu war a nag euh, désinfecté seen oto yi. Mhm. dañ ko war a raxas ci biir raxas ko ci biti ba nga xam ne euh, peut-être li ñuy ragal ci mhm. wàllante ci biir oto transport en commun yi dina du am. raxas boobooy raxas boobooy naqaree contrôlé nag. beneen bi nag mooy oto yi dañu ne aussi dañu war a am dispositif de lavage des mains. Hmm. maanaam oto bu nekk war na am gel ci biir war na am euh, lu ñuy raxasee loxo euh, ba nga xam ne peut-être yow boo jàppee fen sa xel ñaaw war nga mën a dem laal pour pour bañ éventuellement euh, feebar bi aussi wàll la wala ngay wàll keneen. Hmm. donc loolu yëpp ay obligation la yoo xam nekk na ci arrêté bi. Mhm. xam naa ñun dinañ daje ak ñoom le vingt quatre septembre incha allah mooy jeudi prochain. oui waxtaane ci lu bare bari ci. réforme yi ñu bëgg a def ci secteur bi. mais dinañ ci profiter aussi vulgariser ba nga xam ne ñoom dinañ xam ne kat mhm. yëpp yi. ah bàyyi nañ leen place yi nga xam dañ ko ne woon dañ ko éliminer mhm. place yooyu léegi autorisé nañ ko. ku nekk li nekk sa carte grise wala ci sa licence auto moom nga yëpp. boo ko yebee it am na ay ay ay warteef yoo xam ne mu ngi ci sa kaw te du la wàcc. très bien euh, laaj na ay waxtaan yu yaatu euh, euh, au delà même des sanctions ñu xam ni waxtaan yi ak yëgoo gi dafay indi luy dundal seen métier rek gën ko saxal que. waaw parfaitement bu beneen vague amee daal def loo xam ne wax dëgg yàlla sénégalais dinañ leen xaw a mhm. nañu def loo xam ne nag lu yenu maanaa la. ku nekk xam na oto bi nga yeb nan la war a mën a yebe. Mhm. am nga apprenti am nga chauffeur am nga auxiliaire. Mhm. bu ñuy yeb nañu yeb li nga xam ne mooy yenu maanaa. koo xam ne dèjà ba ñuy départ dañ la ne la nga waroon yeb moitié la. ñu dem ba ci biir ñu ne la yebal place yi nga xam ne la ñu toog ñu dem ba ci biir ñu ne la léegi mën nga yeb en plus de place yi ngay toog place yu taxaw hmm. war nga ko defee nag ak xel dañu ko def ba nga xam ne day nuru yëpp yoo xam ne ku ko gis dina la mere wala hmm. mu mu mu xeeb la ok euh, transport bi ci boppam laaj na ay réforme yu xóot de ndax dakaar <laughs> ñu baal ma xam naa nag euh, lim bi fi ne macha allah man mi jóge Thiès <laughs> yow mi jóge Thiadiaye keneen hmm. mais mais dafa dafa jaxasoo le transport bi boo koy xool wax dëgg yàlla da ngay da je veux dire est-ce que waruñ ko réorganiser les réformes et puis bon dem am ambition yu. waaw loolu loolu ñu ci xanti xanti woto yi pour leur sécurité quand même. waaw ñu ngi ci bu parce que déjà voté nañu assemblée nationale loi d'orientation et d'organisation des transports terrestres. loi boobu euh, commencé nañu di waxtaan moo tax rencontre 24 septembre bi. Hmm. ci waxtaan ci nan la ñuy jëmalee loi bi la. texte yi nga xam ne préparé nañ ko ba pare. pour mën a réformer transport li nga wax ci transport urbain nag mooy dëgg. transport urbain moom dafa xaw a jaxasoo ci Dakar. Hmm. parce que c' est vrai que c' est pas que yaafu suñu koy def. Hmm. mais ñàkk doole bi aussi mu ngi ci. Euh, accompagnement bi des na tuuti. Euh, te it professionnalisation bi aussi def na parce que nit ki moom loo jàngul doo ko tere mhm. te gis nañu ne nag transport ñi koy def wax dëgg ay jàmbaar lañu mais des fois dañ koy def par euh, par activité accessoire dañ ko def activité principale da ngay mhm. gis ku am nekk enseignant jënd sa oto ne da ngay def transport pour peut être arrondir les fins du mois wala nga mhm. nekk fonctionnaire wala nga nekk leneen di ci def transport wala nga nekk sax commerçant étendre say activité ci transport mais ñi koy def par vocation dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bariwul mais ñu ngi def par vocation dëgg ñu ngi koy def di ko teg si yoon. assainissement la laaj rek par euh, par occasion. Uh-huh. ñooñu teguñu ko si yoon. loolu moo tax d'ailleurs dinañ indi ay conditions yu bees pour accéder à la profession de transporteur. très bien euh, parce que amul benn condition à part nekk sénégalais. Hmm. am âge yi nga am. et puis ñoo demande agrément ñu jox la agrément xam nga loolu moy ah, euh, loolu de moom une profession trop libéralisée. donc moom au point que finalement ñi am agrément. Mm-hmm. ñoo ëpp ñi am oto. dëgg la ci am agrément <laughs> transport. amul oto <laughs> loolu nag. donc loolu mooy andi jaxasoo bu bari. mooy ak nag problème de rentabilité interne parce que wax naa la mm-hmm. depuis 2009. Mm-hmm. ñu tarif yi. te depuis 2009 li ko li fi yokk tey impacté transport bari na. Hmm. lool ah, loolu monsieur le ministre euh, bu la Kaliyaani yi déggee de mooy bu yóbboo njéem a wuti koppar ndax yaa ngi naan yokk nu tarif yi depuis depuis. est ce qu'on va vers ça dañuy dañuy analyser rek. pour hmm. wane lan moo indi jafe-jafe hmm. parce que bu ñu ko teg souvent aussi opérateurs yi.

parce que dëkk mënul dem ci kanam. Hmm. boo waree dem faju ji nga am ay difficulté boo waree dem école nga am difficulté. boo waree dem liggéeyi nga am difficulté boo waree dem doxi sa soxla nga am difficulté. ba pare temps bi ngay dox sa soxla. Hmm. bu dee une minute nga def ko dix minutes wala quinze minutes wala ah. loolu mooy feebar dëgg dëgg dëgg mu ngi ci transport intérieur. Hmm. dañ ko war a xoolaat càmbar ko pour indi ci ay soppi. transport bi waaye fa na koy jaarale muy tali yi justement ces voies de communication yi nga xam ne bu amul développement du am. %e def ngeen ay ay réalisation yu am solo ci walu tali surtout les les routes principales wax deug yalla euh, weddi gis bokku ci boy génn Thiès jàpp euh, yoon yi Tamba sous la sous région mais dans les zones intérieures monsieur le ministre fofu foofu deug wa Baba garage lay njëkkee parce que damay def émission depuis lors mais chaque matin wala chaque semaine ou mois ñom ñu woté né ñom depuis des décennies Baba garage ah, dañu tumurànke tali ñom dañu dem bani sax ñom dañu melni ni ñu ci Sénégal lan nga leen di oh. tontu waaw li ma leen tontu mooy li ma leen tontu woon fan yële parce que rencontré naa leen comme ni nga ko waxee. Ah. Sénégal wax dëgg yàlla nag ci année yi ñu génn depuis 2012 def nañ ay efforts yu bare bare bari ci wàllu tali wax dëgg. Euh, fii bi ñuy ñëw damay rappeler toujours ne quatre mille quatre vingt un kilomètres de route revêtue maanaam route boo xam ne dañ ko bitumé mu am tali bu ñuul moom lañ fi fekk tey ñu ngi ci plus de six mille kilomètres route boo xam ne tali bu ñuul la maanaam presque yokk nañ ci environ deux mille kilomètres ah. ah te loolu xaalis bu dul jeex mais comme li ñu fi fekk dafa bëri c'est-à-dire gap bi ñu fi fekk dafa bëri parce que booy xool ñu ngi ci ay euh, suñu tissu de route ñu ngi ci seize mille kilomètres six mille yi la mu des dix mille et quelque xam nga loolu dafa bëri mhm. te loolu kenn mënu ko régler ci benn at te route nag dafa cher moo tax ñu ngi def ay efforts yu am solo pour pour absorber mhm. gap bi mais am na ci yoo xam ne ay priorité la te loolu président de la mhm. République ci boppam wax nañu ko nee nañu Bambey Baba Garage Mekhe ba jàpp kooku moom la def suñu kéem kattan pour pour liggéey ko bu nga leen ah. recevoir aussi waxoon naa leen seen doléance yi naa ko wax président ah. wax naa ko président joxe na si ay ndigal très bien ah, yi pare na xam naa nag ni ñu koy defee ak xaalis bi ñu koy defee la ñu war a xool ci budget deux mille vingt et un bi su dee mun na ne jàppandal ñu mun ko def mais xam nga li ci des ci li ñuy wax yëpp nag gis nga déjà santé li ñu fa war a dugal ci cinq cent milliards li war a dugal ci pharmacie industrie pharmaceutique ci xaalis bu bari gis nañ ñu war a dugal ci mbay mi ci xaalis bu bari pour que Sénégal mu a am autosuffisance alimentaire parce que feebar bi daf ñu jàngat lu bëree baree bëri loo xam ne faaw quand même ñu a indi ay saafara balaa mu ñuy dalati parce que ngay soxla masque doo ko am ngay soxla aspirine doo ko am ngay doo ko am mm. et cetera nga bëgg a ceeb ñu ne Inde tëj nañ ko Pakistan tëj nañ ko xam nga feebar daf ñu jàngal loo xam ne dañ ne ah attention nañ góorgóorlu mm-hmm. inégalité sociale yenn yi comme comme parce que président bi mu faloo loolu bokk na ci yitteem njëkk moo waral taxawaayu PIDC kon nañ continuer di xeex ces inégalités quand même mënuñu toog ay ah. bambay quand depuis des décennies dégg nga ko chef de l'état mais wuti leen xaalis bi quand même buñ rek lay buñu buñu wut naan mbass meeg yooyu rek wax parce que bambay hmm. Baba Garage dañ fa am suñuy goro tamit eh. loolu moom <laughs> loolu motivation supplémentaire ah goro yooyu dañoo patience dañu waroon nangu seen doom rek yóbbu nga baal <laughs> pour votre information wa ñop saw ak saw euh, ci zone des Niayes ñom ne nañ yoon wu bess wa fa dafa dag jamono yi kon c'est juste pour votre information buñ ko mëne xol ben kooku xam naa ne hmm. moom soo moytul même service yëg nañ ko parce que on a un dispositif de veille et d'alerte alerte ah très bien ci région bu nekk am nañ fa Ageroute mu nga fa toog bu doog fa ak préfet ak sous préfet ak gouverneur yi mm. lu xew si tali bi ñun lu ci bare bare bari ñoom ñoo ñu koy njëkk a wax balaa sax ñu koy génne ci Facebook wala ci vidéo yi donc lu ci am lu ci nekk mm-hmm. gars yi dinañ intervenir pour defar ko donc loolu noté naa ko dinaa ko vérifier très bien beneen interpellation bu premier adjoint wu maire bu Sindia moom nee na tali géréw bi état bi digg woon ak defar fu ngeen ci ko defar xam nga euh, déjà ñu ngi commencé defar euh, Popenguine bi ñu ngi koy defar presque Euh, ñu ngi defar géréw kiña kiña bur géréw hmm. loolu commencé nañ ko ba commencé woon ko ñuulal mais xam nga après ay chinois ñoo ko doon defar hmm. ah, covid bi ñëw ñoom ñu dellu seen dëkk mënuñu ñëwaat donc loolu moo tax incha allah jàpp nañu ne peut-être fii fin de fin bi hmm. ñoom dinañ ñëwaat pour mën a àggale liggéey bi incha allah très bien en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax monsieur le ministre euh, am na ci yeneen mais xam naa loolu ci émission rek beneen yoon. <laughs> waaw beneen yoon inshallah merci très bonne journée maa ngi lay maa ngi lay gërëm yow it di la sant di rafetlu sa taxawaay di la ñaanal yàlla. amiin comme ni ko sénégalais yëpp di defee wax dëgg yàlla yàlla yàlla musal la ci cet. amin yaa rabbi ñu bokk. may la wér. amin bàyyi la sa xel bu rafet bi. amin ñu bokk lépp maître yum jërëjëf jërëjëf elage Oumar Youm ministre des transports des infrastructures du désenclavement ñu koy gërëm bu baax ci ànd beeg RFM Euh, Salif Sow maa ngi lay ziar. di la ziar El Hadj Assane Gueye. tey la euh, président di gane si waa Kër ma Massar. ci xibaar wala yéen a koy xaar. waaw waaw waaw dina ñëw incha allah. am nañu confirmation bi. parce que uh-huh. moom xam nga annoncé nañu ko fi ay yoon i yoon i yoon. Uh-huh. waaye bi la yoon gars yi nee mooy bu baax bi. <laughs> léegi. Euh, kon dix heures daal la wax la war a agsi. Uh-huh. démb ci ngoon bañ demee ci ministre Mansour Faye ba muy séddale kii bi ndimbal li. ndimbal li ñii cent mille ñii mille. ba ñuy ñëbbi si tase nañoo ak euh, benn oto sapeur bu yore benn zodiac xëy na bu ñëwee ci booba lay yëg parce que boobu moom zodiac bu bu mucc mm. ayib la boo ko tëjee fa bàyyi. Mm. kon ci noonu daal bi nga ko yi dëggal lañ ñu ne président de la république tey dina ñëw. Mm. xool si Kër Massar. bu ko xoosee nag euh, xëy na dina xoolaat yeneen bërëb yi nga xamante ni ndox mi am na ko waaye Kër Massar moom jamono ji ci banlieue bu Ndakaaru mooy bërëb bi nga xamante ni moom la ndoxu taw yi gën a gën a gën a gën a sonal. Euh, léegi Salif waaw El Hadj Assane. dama damay def ni maître Omar Youm ndax moom tudd na ay gorom ca Bambey man samay goro Kër Massar boori pharmacie Baye Niass. <laughs> foofu laa bëgg président njëkkee fa bu dee mu ngi déglu rajo wala service am parce que sinon. xam nga bu njëkkaan xaw ma ndax mooy am léegi ba tey jamonoy Senghor yooyu. njiitu réew boo deful ndànk fa gaa yi bëgg a jaar rek lañ lay jaarale créer la benn benn canal boo xam ni gis loola liñ bëgg nga gis ko rek nga ñibbi foog ni yaa rey gaynde gi. dem ca gox yëpp de na dem pharmacie Baye na dem alaaji Paate na dem. <laughs> Euh, parce que parce que rafet nañ ci njortu de. xamul tax ñu mm. ci njortu. Mm-hmm. parce que am na ay autorités administratives. mooy préfet yeeg sous préfet yeeg yi. ñoom ñu ngi liggéey seen côté. Mm. mais teewul saa su ne am nañu yeneen service yoo xamante ni présidence ci boppam la ñu doon liggéeyal directement. ñoom seetlu nañ ne ñun ayu bés bi yëpp weesu ñoom dañuy xëy ñëw xëy si foofu. Mhm. donc ñee bu ñuy liggéey di rendre compte. ñoom itamit dañuy rendre compte. Mhm. bokk ak li presse bi di rendre compte xëy na président moom information mënu koo ñàkk a am. Mhm. président jàpp nañ ne mooy gën ëpp information ci réew mi. moom kay xanaa léegi ndax day. topp gars yi fi ñu koy awale wala ndaxam bu ñëwee moom day tracé yoonu boppam parce que foofu ndox mi moom nam ko nangoo kéemaan la côté boobu noonu wax xëy na sax bu fay dem bu yéegul oto bu mag tamit dina jël li nga xamante ni mooy xeetu gaal. gaal yooyu ngir mën a dem waaw xoolal boppam gisal boppam. Mhm. nga ndox mi nekkee am na tamit leneen. mais ndox mi wàññi wàññeekuwul nga baal ma. Salif ñu est-ce que muy wàññeeku. ñu ngi pompé mais ndox mi day day ñëwaat parce que foofu lu ci ëpp dafa nekk zone boo xamante ni dafa amee napp kon léegi bu tawee. c'est compliqué napp bi day yéeg. Mm-hmm. donc ñoom bu ñu pompé tamit ba ci benn euh, niveau bi machine bi day tàng. bu fekkante ne dañoo continuer di pompé machine bi mën na fay. Mm-hmm. donc ñoom bu ñu pompé pompé pompé sapeur yi ba lu yàgg il faut ñu couper machine bi. Mm-hmm. machine bi sedd ñu mën ko mën a déclenché waat mu mën a mën a pompé waat léegi loolu mooy premier facteur bi waaye diggante bi ñu koy coupé ak diggante bi ñuy sedd ak ba muy jógaat. ndox mi day xaw a tuuti. ndax napp bi bi day day day yàbbi. Kër Massar daal programme spécial rek ni ñu ko waxee assainissement mooy saafara bi Salif li ci des yëpp ay ay yàq financé, chaque année, il manque. Voilà, mmh. je pense que la solution structurelle, euh, mmh. ça passera par ce programme spécial d'assainissement. Effectivement, am na li ko gën a compliqué El Hadj Assane mooy Kër Massar am na benn pompage bo xamanteni muy won ci ci souf ben canal la. Mmh. waye problème bi moy ba gaay ñëwé bëgg taal machine ba machine ba daanaka 5 jours nangul tàkk. légui nak finalement ci la autorités yi gisee comme plan B léegi machine boobu lañ xool ñoom nañu ko defaree léegi nag ñuy awala ndox mi ci kaw tali bi loolu waraloon ñuy coupé dagg tali bu jógee rond point Kër Massar hmm. dem romb ay jaxaay dem ba Sédiment ba jël autoroute bi boo bëggee dem Thiès dem boo bëggee dem Médina dem hmm. moo taxoon gars yi daal ñu koy dagg mu indi woon nag jafe-jafe tamit ci wàllum circulation parce que mujj gi ñëpp dañuy dem tuuru ji hmm. ci route nationale ah ni day romb tali dem ci beneen côté pour ndox mi mu mën dem ci côté marigo bi. Mhm. loolu dal moy problème bi keur Massar pompage bi mo pose woon problème même général sapeur pompier yi. danaka temps yepp parfois boobu it di la ñëw di yendu ci fofu mhm. parce que ñom tamit ba légui sax pour explication scientifique bi parfois da xaw pose problème parce que bo pompé ñaare ndox mi day dem mais ñom bu ñuy pompé dañuy gis ne ndox mi mu ngi résister ba légui mhm. donc euh, plus de moyens xeyna dina ñëw régler problème bi président tamit bu ñëwee. liñ koy bindal ci kayit ak liñ koy waxal ak liñ koy fotol hmm. bu ñëwee ci terrain ba laajteel boppam dina ci am plus d'information yoo xamante ni na jotu ko woon dina tax ba mesure yu war a jël ak yooyu mu gën a gaaw mais problème bi mooy comme ni ko waxee pompage bi dëgg la baax na mais pompage bi hmm. day nekk peut ci zone yoo xamante ndox mi boo ko pompé mu dem waaye hmm. zone boo xam ne ndox mi boo ko pompé tamit day taxaw di la il faut ñu def comme nu nga ko annoncé démb ci conseil des ministres. boo xamante ni tamit bu baax la ci gox waaye tamit bu gaaw. Mhm. ndaxte nit ñi déjà ñu ngi di génn seen kër yi keroog maa ngi koy waxtaan ak benn soxna nee na ma. Euh, li gars yi di def baax na sax ceeb diwlin matelas d'accord. Mhm. mais sama kër gi boo ko xoolee R plus 3 la. Mm. maa ngi sant donc matelas bi bu ñu ma ko joxee fan laa koy lal. Mm-hmm. ndox mi il faut ñu libérer leen ko ci nu mu gënee gaaw ñoom loolu mm. seen problème en plus jëlee ndox mi. Mm-hmm. ñu xool nan lañu koy pomper saupoudrage ak service d'hygiène. ak santé. Mm. ndaxte ndox mi yàgg na fa yàggaay boo xam ne dem na ba jaxaseel ndoxu fosse euh, ndoxu fosse septique yi maanaam ndoxu duus donc loolu mën na indi ay. jàngoro ci eh, maintenant eh, li ñuy ko waxe danañ jàng lu bari ci ci mbass mi waaye eh, inondation war nañ ci jàng lu bari Salif nguur gi ak liko war jitu ci ñepp waaye askan wi également ci walu euh, ñu fexé di am toutes les informations bala ñoo jënd terrain fenn fi ndax nak ah. xam nga jël ay millions def ko fo xam ni ab nap phréatique mm. wax dëgg yalla aussi xel nanguwu ko ñun il faut que ñun suñu bop légui ñu ñu mm-hmm. gën exigeant ci mm. bép action ak acte bu ñuy tegati par rapport ak njëndum suuf tabax ak yooyu ñu daal di exigeant par rapport à ces promoteurs parce que yenn yi ah. aussi ak njubadi dëgg la ah nit ku jox ay millions ci foo xam ne yow amoo sax foo jaarale ndoxu ndoxu euh, potit ndoxu taw léegi boo boo ñëwee fu mel ne SNH euh, boo mooy unité parcelle Kër Massar yi mm-hmm. xam nga foofu ñooma ñaa ñoom nee nañ SNHLM moo leen ko jaay mm-hmm. xam nga SNHLM bu ñëwee ne da lay jaay yow da nga wóolu mm-hmm. parce que da naan ah, lii de SNHLM la ñoom xëy na fi ñuy jaay dina dina nekk loo xamante ni lu baax la parce que ñoom nguur gi la ak yooyu noonu ba pare ñoom tamit nee nañ ñu ba leen gars yi doon jaay foofu dañ leen jaay ba si yàgg ñu leen léegi dañuy fayaat mètre carré bu nekk quatre mille francs mm. loo xamante day jëm ci wàllum assainissement mm. pour ñu assainir gox ba pour mm-hmm. bu tawee ak ndox yeeg yooyu mën a gis nañ ne loolu gars yi ah. yi mujjul am waaw looloo waral nag fi ñu toll nii ba bu tawee mm-hmm. ndox mi di fa taa taayu yàgg yooyu di ay jafe-jafe parce que foofu ay zone non la mm-hmm. ñaare ay tool ñu fay bay mbayum dër yooyu donc bu ñëwee war faa mën a dëkk am na ay accompagnement yoo xamante ni par force da ciy ànd sinon bu ci àndul rek mën na indi jafe-jafe comme yi ñi mu doon ay milliards ay milliards yoo xamante ni da koy def foo xamante ni mënoon na ñàkk xëy na bu doon ne anticiper nga doon ne anticiper nga en plus aussi mooy li ñuy def euh, opération pré hivernale yi ñuy def même bu dee ñu ngi koy def di di di di fàttali ay kii xam naa ne il faut ñu gën ci gën a góorgóorlu waaw fooy fooy pré fooy pré hivernal fu amul sax fu amul sax ay ay infrastructure voilà euh, dafa am foofu lu ñuy lu ñuy luqarti foofu koy amul benn euh, rigole non. waaw mais xam nga diggante. parce que man je j'ai appris que y' a que 30 pour cent 30 pour cent. rek foofu gox yooyu yëpp. le tiers moo am moo am assainissement zone yi. effectivement mais ndox bi fu mu war a aw am na canal yu mu war a canaux yu mu war a jàll pour dem fële ji ay mari boobu. Mm-hmm. mais yooyu tamit souvent day fat mais ku koy fat tamit askan bi am na ci benn part de responsabilité boo xamante ni tamit il faut ñu wax ko tamit mooy mu mm-hmm. euh, maa ngi doon wax keroog canalisation du pour deru xar wala deru nag benn waaye nee na man fat sax dañ ko fay dugal donc. Mm-hmm. yooyu noonu il faut nit ñi tamit jël ci ay motuwaay xam ne yow boo débarrassé. parce qu'il y a pas de sanction rek nit moom lu mu sañ def rek dara ko ca fekkul rek. boo ko defee nga sànni ko fii après ndox bi fatt. Mm-hmm. dina dem sa kër dëkkandoo waaye yow dina donc mu doon ay yoo xamante ni nit ñi faw ñuy sóor bay bañ rek euh, réagir dans l'urgence tey tey tey tey tey mais ñuy sóor ëllëg naa débarrassé wu si fas bi rek tey mm. mais ñetti weer ñeenti weer après mu indi la jafe-jafe boo xamante ni doo xam foo koy nettalee mm-hmm. yooyu tamit faw nit ñi di ci bàyyi xel ñu xam ne tamit dëkk bi ñëpp ko bokk ku nekk tamit di def loo xamante ni euh, luy luy doxal yëf yi la waaw mais dañ lay dañ on va te reposer parce que bu fekkee di président dafay ñëw bu fekkee <laughs> te yow xam naa zodiac yi mu yor bokk ak sa bos yow mbaa yor nga gaal waaye man de kii laa bëgg a jëlaat rek mooy euh, matelas pompe air yooyu. ah. su ma ci gisee bu libre rek xaw cee yéeg. man nga ndox. <laughs> waaw <laughs> ndox mi tey nii. ah. waaw ñu nag géej waaye lañ dëkk de. <laughs> kon géeju waaye gi. kon tranquille jërëjëf jërëjëf Salif. Salif Sow ñu koy gërëm kenn ci sunuy ndaw ci banlieue bu Ndakaaru ak euh, Ndongo Ka Salif jërëjëf euh, ñu doon jokk ak moom rek ci waajal gi ñeel ngan gi bu président de la république président Macky Sall ca Kër Massar. ak gox yi ko wër gi euh, xoolal ni ji toll ne na ngir programme spécial d'assainissement pour Kër Massa. ci kanam as tuuti intervenant rek euh, ñu yëkkati jotaay gi. DJ Ablaye Diop <laughs> moo nekk ci machine bi Ablaye ñu gërëm bu 88 628 14 asalaamaaleykum Alaaji Assane. waaleykum asalaam. ñëw lay ziar bu baax a baax. yàlla yàlla na ko ziar. di la ñaanal gudd fan ak wér gu yaram. amiin ñu bokk lépp. askanu Sénégal ñëpp a ngi la koy ñaanal ndax vraiment lu ministre bi wax rek moo am solo yow yaa ngi jàppale askan bi yàlla na yàlla may gudd fan ak wér. amiin amiin ñu bokk lépp. ah ministre bi aussi tamit déglu nañ ko mais dañ cee gën a sant parce que su fekkee ne yaa ngi xool ay waxtaanam ak ay déclaration am. Hmm. ne kilifa la ndax kilifa su amee dal rek day neex a déglu. Hmm. kilifa su amee dal ay kàddoom si li nga xamante ne ñoom la jiitee maanaam day day day nangu ko day yomb kon koy gërëm si taxawaayam. Hmm. et di wax nag affaire mbënd bi aussi tamit ñun am nañ ci xalaat. su nga alaayu atum. troisième compétence quatre-vingt-dix-neuf. di dem bànqóo. Hmm. ba Ndar bëggee am jafe-jafe. ba Ndar amee jafe-jafe mbënd. Hmm. ñoom ñooy jéemoon ànd ak seen officier génne Ndar ci mbënd moom. Hmm. tey jii soo demee ci temps yi officier yi nga xamante ne ñooy yoroon mbir moomu ñoo soo si. soldat yi nga xamante ne ñoo nekk kon mën naa ñu wax ak bi nga xamante ne ñooy gouvernement bi. waa jeunes yi ay députés yu am. ok am expérience donc foofu. ci ci gàttal ñu ñu génne le génie civil. waaw ba a génne. très très bien am na solo. bu baax a aussi seen kër maa kër maa El Hadj si mm-hmm. la. Mm-hmm. mu am si biir terre. Mm-hmm. te ñoom ñoo ngi si jafe-jafe ñoo kon ñoo ngi leen di ñaan ñu ñëw jàppale askan bi jàppale waa kër moom El Hadj ñu génn si jafe-jafe yi. voilà salaamaaleykum maa ngi si ziar docteur Ndiaye bu baax. jërëjëf Boubacar

donc ministre bi na xoolaat bu baax ak affaire yokk bi ba léegi ñu ngi koy def jusqu'à présent ñu ngi koy def. Hum, hum, hum. ba tey ci suba ñu ngi koy def. waaw ah kon ñu am yaakaar bu fekke ni jaadu jërëjëf jërëjëf señ bi jërëjëf loolu bu dee bu dee teguwul ci yoon moom il faut y remédier rapidement waaw <laughs> Dakar ni ñu koy waxee transport bi laaj na ak réforme ci lu xóot nag léeg-léeg oto romb la moom da ngay ñaan rek ñu egg ci jàmm lu neex waaye. Ablaye nit ne ca biir genn wàll yaram ba ca biir genn wàll ga ca biti xam nga loolu dafa rafetul sax waxuma la sax di alkaateeg yooyu mais dafa rafetul sax et puis pour la sécurité asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Alaaji Asan. waaw sëñ Ibrahima. maa ngi lay ziar bu baax. jërëjëf Jong. di ziar bi yëpp di teg ci loxo xalifa bi mu dox ko xalifatul muslimin fi des yëpp. allah. di ko ñaan jàmm Sénégal. dama wootee rek xol bu sedd doy na ñaan comme ni ma la ko waxoon yaa tax ma wootee. <laughs> jërëjëf fi ñi nga xamante ni dañ leen di jël di leen invité ñuy wax. Hmm. dégg naa sànq ministre Umar. ñu mu hmm. wax. Hmm. mbir lépp nañ ko oyofal. ku war a jàppale nan la jàppale. na ndaxte nit ki bu amee métti. ki la yëg moom moo am solo xam nga a Hadj Assane mbir bi juddu. oui bu tudd Alaaji Assane Gueye. boo ko yuuxoo du la wuyu.

rajo bu baax. jërëjëf waay. Eh, woote naa fi woon benn jour di wax ci affaire tali ndondal bi. bi nga xam ne mooy jóge ndàngal ba. dem ci sel. Mm-hmm. waaw ci bëgg naan bi ministre wax ci ndax. Mm-hmm. bu weesoo coono nga xam ne ñun moom la ñu daj pour dem ci gox yooyu. Mm-hmm. tali boobu dafa ne yoon boo xam dafa stratégique gisuma yoon bu ko ëpp importance. ci ci naka. ndax eh, diggante boobu. Eh, oto même oto frigo yi nga xam ne dañ daan jóge mbuur di ñëw Touba di andi jëm sax foofu lañ daan jaar. ok ndax tronçon boo xam ne lu doy jàppal la. Mhm. waaw eh, kon yoon boobu dafa am importance am économie. Mhm. waaw kon oto yi nga xam dañuy jóge Touba dootuñ dem ba ay Thiès wala ñu dem ba Fatick di di ndànk la ñuy jaar dem. bu dee loolu boo doon lakk trente litres wax boo moytuwul di nga lakk vingt litres. nga xam loolu am na njëriñ ci gox. oui am na solo ci développement tax ndondal suqaliku. oui oui. waaw ndax ndondal dañ ko bàyyi defaluñ ko dara. Mhm. monsieur le maire Pape Sène danañ le chaque jour dañuy waxtaan ne Macky Sall war na koo jàppale. Mhm. ndax ndondal loolu dong la ñu koy laaj. dëgg la leneen luñ koy laaj. très bien jërëjëf waaw ndax ndondal defaral leen tali boobu. incha allah jërëjëf. jërëjëf Faye jërëjëf allo.

ndax moom mi nga xam ni tey jii li am ni yëpp moom la. il nit ñi dala seen xel te xam ni yëf yi du yëfu kenn yëfu nit ñi la. am na ci loo xam ne aussi yëfu président de la république yëf la boo xam ñun ñëpp ñoo ci war a ànd jàpp ci. kon nag am nañ ci pas de responsabilité. waaye nag rawatina encore maire yi nga xam ni ñoom la ñuy jël placé leen ci gox. ñoom ñi nga xam ni dañoo war def seen waru gas te defuñu ko aussi. baax na. président de la république li mu war a def mi ngi koy def askan bi li ñu war a def ñu ngi koy def waaye def ci am ñenn ñoo xam ni ci wàllu yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci fooguloo foog cheikh bi foogul fooguloo ni am na sas am na sas yoo xam ni nag ab nguur la war quand même anam hmm. yaa ngi may dégg waaw dama ne est-ce que pour clarté am rek am na yoo xam ni nguur la war d'abord mu ni rek ay bailleurs yu ñëw assainissement la ñu wax assainissement waaw waaw mais xam nga xam nga xam nga il faut aussi ñu xam ñu xam leen mhm. ñaata ñaata temps

waaw waaw nga nga nga jóge fa dem dem dem fu mel ni Tivaouane mhm, tey mhm. Tivaouane maa ngi remercier aussi au passage yaa ngi si ndeng parce que def na liggéey mucc ayib à Tivaouane aussi ah ñëw na di xool ñi nga xam ni euh, mbir mi dal na leen ah am nañu problème wax dëgg yàlla mu jaar fa dimbali leen ñoom ñëpp aussi maa maa ngi koy remercier au passage aussi wax dëgg yàlla ah ñi nga xam ni aussi mbas mi dal na leen foofu par rapport mhm. ak aussi euh, Euh, maa a jërëjëf Cheikh bi euh, ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñu ah. ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant RFM auditeur bu mujj rek ñu koy jégalu bu baax waxtu wi moo ñu dab wax na l'essentiel gis na ni askan wi tam war nañ ci jël seen matuwaay mais daf ci am ay grands travaux yoo xam ni état la war waaw ñoo war a seen service yëpp yanikat yi xëddeen dañuy yëgoo harmoniser waaw

baal ñu mu wax di mu jóg tuuti. hein na kàddu gi jóg tuuti dafa leerul. waaw man ñi ngi rafetlu bu baax sa esprit positif. euh tàmm ma di wote ci radio nak mais tey moom foog naa ni il y va de la responsabilité de tout un chacun. hmm Zagbaaw laa dëkk. Euh, dama gis ni état mi effort quand même di mhm. mais parfois man suma ingénieur damay laaj ni liggéeyee. Mhm. canal bu nekk fii gis def na on sera coupé du monde. Mhm. depuis temps Ablaye Wade indi commencé woon travaux yi faj ko indi engin. gis nga élection yooyu bañ ko je suis fi engin yi jóge ba léegi canal bi ñu koy gis muy def ni yoon bi kenn mënatu ko mais depuis un an ou deux ans. Oui. Mais à Italie, donc mes dématoules.

vraiment waron nañ ko xol nak jéem a assainissement ba pare soga tek ay tali ko. am woon taata. am ndox ci ngi fa ah ba ah oui am na solo paludisme bi. Mhm. ak pandémie bi. Mhm. à la limite dañuy liggéey mais parfois dañuy exposer les populations c'est ça que je voulais dire. dëgg la merci ñu ngi rafetlu bu baax esprit bu positif bi. jërëjëf rek nga mëna a mel ndax def nga dëkk. <laughs> jërëjëf soxna si waa waa Thiès a ngi far merci beaucoup ñu ngi gërëm ñëpp <laughs> Ablaye ah waa Thiès mel noonu. donte Medina am ngeen seen woy <laughs> Youssou Ndour foofu gañe ngeen ñu fa nag wax dëgg yàlla médina xam naa ni boo ko laajtee bitim réew xëy na ngeen raw ñu waaye Thiès ci wàllu njàmbaar hmm. ci wàllu ak bañ résistance ab aba Thiès dañ daan waa lycée Malick waaw sànni xeer <laughs> Ablaye mu ngi may def ay signe sànni xeer gaa yi ne laajal gaa yi ba président di jaar Abdou Diouf ay jamono ñu taxawoon ca trottoir yi naan dañuy sànni xeer président ñu taxaw fii ñu taxaw fële xam nga flèche bi ak cortège présidentiel dafa gaaw Ablaye ci yooyu mais ñu taxaw fële ci gauche bi droite <laughs> c'est-à-dire <laughs> mbokk yi ak pour le service digital du groupe Futur Média